فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم الله وإنا إليه راجعون دي tuddaat yàlla di delluwaat ci moom di moy ki nga xamante ni mo ne moo am kattan moo mante am dole te bindu doom adam mom len sak len li nga mom nak muy sa alal waxtu wala neexee nga koy jël jëlin wi ak waxtu wi ak façon wi moy toy ci xolu nit ñi waye ki fi joge nekkon na jëm ju baax jo xamanteni ni ni ku sel la won ku gëmon Serigne Touba ku nang won jamm yalla ku tegon ay mbiram ci deug ndax intervention yu mujj yëpp ku ko seetaan deglu ko. da nga xam ni Serif Abdourahmane Tilala la nit ku baax la woon nit ku gëmoon Serigne Touba la nit ku amoon taalibe la intervention yu mujj yëpp liñ ciy jàngate intervention yu mujj yëpp yiñ ciy jàngate mooy liñ ciy jàngate mooy da ngay xam ni kii ku bàyyi woon xel bis bii la ndax ki ko yàlla boole loon muy sunu bàjjan di soxna Faty Gaye yàlla boole woon leen denkon ko Abdourahmane Fall Tilala sohna bintou Massamba denkon ko ak njabotou seigne Massamba gep ñu andon di dund lim don don seut seigne sëñ Massamba dafa summi won mbubbu seut seigne Massamba gi xamni borom keur des ko wara tarbiya des ko wara a ndax yonente sallallahu sallam ci hadith ni isa sallatil mar'atu khamsaha wa samat shahraha wa ataat zawjaha wa hafizat farjaha daxalat janna jigen bu julle julli juromam wer wer koram topp ndigali borom këram watt boppam ba du mooy yàlla bu faatoo yàlla danaan ko àjjanaa ngoog bunt bu la neex demal dugg soxna Fatou Gueye bàyyi woon na xel bis bi ba tax na ku gis seen mbir ni mu demee rek nga xam ni yàlla da na boole woon kon nag Abdourahmane Fall Tira la ñi ngi ñaan yàlla euh, fa mu jëm fa jëm yàlla euh, yërmande yàlla jiitu ko fa xaar ko fa ci barkab ma Massamba nekkoon na jëm joo man sama xarita woon mu nekkoon nit ku sell nit ku woyof nit ku bëgg lu baax nit ku mën a sonn ci doomu adama nit koo xamante ne si ni ku ku daan ku daan suturaal nit ñi la ku daan jox nit ñi cër la ku bëggoon lu baax la. nañ ko it ku fonkoon euh, guddik yonent bi la. waaw ku fonkoon julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam la ku fonkoon julli yonent bi sallallahu alayhi wasallam la ba tax na bis bi bàyyi woon na ko xel te yonent bi sana alayhi wasallam képp koo xam si ni bëgg nga ko képp koo xam ni euh, bëgg nga ko mooy topp nga yàlla. qul in kuntum tuhibbuna allaha فاتبعوني الرسول كيب كو xamante ni si ni ba nga yàlla moy da ngay top yonentou bi sallallahu alayhi wasallam te kune xamna ni serigne bi sëñ Sërif Abdourahmane Fall ci lol la nekkon هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون